Anyways.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 fekk keesu jàkka ja waa jàkka ja dajale woon ne ko tuŋaañ dal di daw waa ji nee ñu doomu imaamu jàkka ja moom daal dafa bàyyi ba baayam bi di imaam dem dëj sa waay di nas pexeem dal di dugg ci néegu baayam daj ji armoire ba yulli sac ba defoon xaalis ba ca kaw lal ba toll ci ñaari million ne ko tuŋaañ ne may daw baayam bi di imaam bi nag moo tax bi mu dellu see ci dëj bi mu demoon yoon dal di ubbi néegam dugg ci la constaté dégâts yi fekk ñu ubbi armoire am jaxase ko bi mu xoolee fi doon denc xaalis bi xool xool gisu ko keesu jàkka jëne may problème na de naka noonu ci la dal di wooyee naataangoom yi ci jàkka ji ñoom ñépp ñu ñëw dal di constaté ndoo bi loolu amee na ci la imam dal di demee porte plainte doom ji waaye bi muy porte plainte doom ji nag coow li bari woon na ci famille bi de ndax famille bi dañoo lankoon ne du porte plainte doom ji ma ne ci doom joo xam ne dalaa toroxal ci say digg nawle sàcc xaalis ñu ne doo ko yar moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca amoo cadre mën doy waar ab sofooru man moo fa piégé ab waa ji doon def càq-càq dal di koy livré ay agresseur ñu agressé ko ba noppi dal di sàcc motoom pop gannaaw ba loolu amee nag le police bu wàqi naan dal di def enquête ba teg loxo safooru taxi bi nga xam ne dafa lëkkaloo woon ak ñetti agresseur iri borom càk-càk bi ba ci VDN 3 bi dal di koy jébbal agresseur yi ñu agressé ko ba noppi dal di jël motoom ñetti agresseur yi fi mu tol nii ñu ngi leen di wër waaye sofooru taxi bi moom teg nañ ko loxo ba daan ko ñaari atu kaso <laughs> waaw góore waay moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën xewoon ca Kafountine fan yee weesu ba am ab ndaw si jigéen su am jëkkër di wuyoo ci turu Asis ñu fekkoon ko ci kaw lalam mu tëdd ak ñaari doomam ñu agressé ko dal di koy jamatay paaka ba mu jara ñakk ñàkk bakkanam samba booy bi bon bi def lu ni mel fi mu ne section de recherche bu Ziguinchor teg nañ ko loxo <laughs> ne woon naa leen du rëcc de sama gars yi dañoo li gën doy waar nag waa ko tegee loxo dal di koy l'enquête nee na moom lu ni mel yàgg na koo def ca Kafountine ma ne leen ñu mel nii di agressé nit ñi di leen jamatem ba ñuy dee ñu leen di dugal ci kaso yi di leen génne ñu mel nii seeni place nekkul sax ci kaso ku rey bàkkan daal te tay ko tëral rendi mu jeex tàkk ku doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz